بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله معز الحق ورافعه ومضل الباطل وواضعه والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد ما لبى ملب أو تهلل محرم وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين أجمعين مكي أم بكتلول mbégte lool ñu dajewaat ci suñu jotaayu asalafu ma alquran muy jotaayu magi démb nan lañ daan dundee ak jaajëfal ñi nga xam ne ñoom ñoo ciy gunge muy Lo multimédia nekk fële ca Sandaga di jaay lépp lu jëm ci informatique eh, tabaraka rahman ñoom yàgg nañu gunge ñooñ alquran ndax ñoom ci waa alquran lan bëgg lan bokk yal na yàlla buur bi subhanahu wa taala sàmm leen eh, tey nag ñuy mottali juróom ya nga xam ne moom lañ leen waxoon ne kuy jàng alquranul karim nang na ko ca yéene bu mujj ba mu nekkoon lan al munajat an taqra alquran bi qasdi al munajat sooy jàng alquran al karim ba nga xam ne moom mottali juróom ya ñu waxoon leen ko mu mooy lan nga fas yéene ci ne yaa ngi déylante ak borom bi subhanahu wa taala subhanallah koo soxla ci ñun da ngay composé numéro rek nga daal di koy woo mu ne allo nga ne allo waaye soo soxlaa borom bi subhanahu wa taala ubbil téere bii di kaamilu alquran alkarim fan yële gisoon ngeen ma bind xamaloon leen ci Twitter bi ne ñun de Facebook saa yoo koy ubbi da ngay fay xaalis pour wax ak nit ñi saa yoo ubbi WhatsApp da ngay fay xaalis pour wax ak waye kamilu alquran dang koy ubi gratuit pour wax akan wax ak ki bind nit ñi rabbul alamin khaliqun nas rabbi nas ngay wax ak mom gratuit kon nan la ñuy xoolee ba li ñuy wax ak nit ñi ëpp li ñuy wax ak borom nit ñi mu yàlla burbi subhanahu wa taala kon ngay jàng alquran jublu ci almunajat di déylante ak borom bi subhanahu wa taala hadith abi hurayra yonente bi sallallahu alayhi wa sallam neene yàlla burbi subhanahu wa taala ma adina allah li shay'in ما أذن لنبي حسن الصوت بالقرآن يجهر به نين يلا برب سبحانه وتعالى أمول كموي دقلو كم نموي دقلو أب يونين تبو نيخبات موي جنغ القرآن الكريم ما أذن أي ما استمع نتكي لولا نيخ وخل وإن الليرني سو أمي كوي جنغ القرآن تبت غيالا دقلو تولا كوكو لي دقلو ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن صوت بالقرآن يجهر به yàlla dégluwut kenn dégluwut len comme ni muy dégloo ab yonent bu neex baat li nabiyin googee dafay ëmb yonent ak kudul yonent parce que yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xam le na ne boroom xam-xam yi ñoom ñooy donnu yonent yi waaye lii ma lay wax du sama waxi bopp li tax ma wax ko xadis mooy firi xadis ak tafsiru bi e al mathur benen hadith ñëw na ci muy xadisu fudaala nga xamante ne ubayd moom nettali na من ينتبي صلى الله عليه وسلم دفع وحني لله يلبر سبحانه وتعالى أشد أذنا يل نموي دقلو إلى الرجل حسن الصوت وفي رواية إلى قارئ حسن الصوت كي جنج القرآن الكريم وهي بات بنيخ لول كيف كي جنج القرآن غور غور لوتي سبات نيخنا وخلنا لن بات من من نيخ وهي تاروت فيك نكو دي جنج القرآن من تتارو nit ki baata mën na neex lool fekk mu ci way lo xamantene baaxul day fekk shaytan fa zayyana lahumu cheytaanu suu amalihim ak ku mënti doon shaytan mo koy taral ci seeni i nopp rek waye suy jàng alquran al karim respecté la nga xamne moy ahkam al tajwid ya dal di koy selal ay yaqra bi qalbihi qabla lisani iqra bi qalbika qabla lisanik jàngel sa xol bala sa làmmeñ kep ku koy def rek sa baat neex na gor góorgóorlu respect li nga xamne moy ahkam al tajwid ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ne ki jàng alquran na ko yàlla di loo moo raw ila saaxibi alqaynati ila qaynati alqayna mooy al al al amatul muganniya dañ ko daan wax ci arab dañ su jaam bu jigéen bokkoon na ca la daan yëkkati njëgam suñ ko daan jaay mooy mu nekk soxna soo xamante ne ku mën a way la lool parce que suñ daan jënd jaam arab yi dañoo bëggoon lay la ta samar toog soxna si di way ñoom ñu toog di di naan seeni mbir waaye toog di noos ñu ne ki nga xam ne dañ koo may jaam bu jigéen man nañ ko tekkee nga am soxna soxna su taaru lool lool ba weesu jéggi dayoo waaye mu mën a way loolu tax léeg may tooñ soxna yi ne leen nanu jàng way nanu jàng way bés maa ngi leen di waxal soxna yi aljanna ya nanuy waye nee na sa soxna mu mën a way lool jamono ba muy way na nga koy dégloo ne xib nga xam ne say bët xefatoo yonent bi nee ne kii toog di jàng alquran na ko yàlla di dégloo moo raw waa ji na muy dégloo soxna sa laa ilaha illa allah nga jàng alquran yàlla buur bi subhanahu wa taala teggi na ay bëtam ca pale ya yàlla xoolul kenn yow mii lay xool ndax lan limaada li annaka taqra'u alquran taqra'u kalaam allah taqra'u fi lkitaabi almubin taqra'u fi lkitaabi alaziz sooy jàng alquran alkarim yàlla yow lay xool yàlla yow lay déglu moo tax ki jàng alquran alkarim na ci jublu leen al munajat di deylante ak borom bi subhanahu wa taala xadiisu al bayaad dafay gën a leeral loolu muy xamle ne anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam xaraja binnaasi yowma yonent bi dafa mos a génn ci nit ñi maanaam dafa dugg si fekk ñoom ñu ngi julli ku ci nekk waqad alat aswaatuhum bil qiraa ku nekk yaa ngi jàng maanaam kii mu ngi jàng ci kaw ñoom ñëpp ñu ngi toog di julli ku nekk di naafila ku nekk di jàng ci kaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne leen innal musalliya naka ki nga xam ne moom mooy julli yunaaji rabbahu azza wa jal kii julli suy jàngal quran mu ngi déylante ak borom bi subhanahu wa taala ku nekk ci yéen fal yandur maa yunaaji wa fi riwaya bima yunaajihi na xool lan lay déylante ak borom bi subhanahu wa taala kon xadis yi day xam le ne alquran soo koy jàng nang ci fas yée fas yéene déylante ak borom bi subhanahu wa taala mooy téere bi nga xamante ne soo koy wax man baata yaqra'uhu qad baata yuxaatibu rahmana bilkalimi yaa ngi nekk di wax ak borom bi subhanahu wa taala ma waxoon leen ne juróom yi ku ko fas yéene ci alquran muy tu shaimun da ngay am yeneen juróom yoo xamante ne dañ koy tënk ci émission bi tey mooy lan xirsun maa alxaa arra xirsun asin almim alayn mooy juróom yi ngay am alxaa sooy jàng alquran alxubb yàlla buur bi subhanahu wa taala daf lay bëgg alladi yaqra'u alquran yuhibbuhu llahu subhanahu wa taala sooy jàng alquran yàlla daf lay bëgg te xam ngeen yàlla su bëggee nit nan lay def yàlla du bëgg nit di ko nëbb yunaadi jibril day woo jibril jibril daal di yéeg ci asamaan yi ba ñëw ci kanamu borom bi mu ne ko man damaa bëgg fulaan ibnu fulaan damaa bëgg diw doomi diw fa ahibba yow jibril bëgg ko jibril ne bëgg naa ko yow yàlla koo bëgg bëgg naa ko yàlla ne ko wooteel ci asamaan ba ñëpp wuyu nga ne leen man yàlla damaa bëgg sama jaam sangam na ko ñëpp bëgg jibril daal di taxaw ci asamaan yi mathalan muy woote ajabatu nida ya ahla sama ya ahla sama wa asamaan yëpp daal di déglu jibril ba jibril wuyu ko ba ñu wuyu jibril wa asamaan yëpp daal di déglu جبريل نلين إن الله أحب فلان ابن فلان أو إن الله أحب عبده فلان يلا نين دفا بغ جامم سانغام بغ لينكو وا اسمان ييب دا دي ني نيونيت بغ نانكي يالا بغ بغ نان جامو يالا سانغام الله اكبر كون لي لا معنى ان يحبك الله اولف داف كوي ليبو غا بغ بور بور بغ لاكو غن أن يحبك ملك الملوك أن يحبك الواهد القهار أن يحبك خالق السماوات والأرض لا إله إلا الله هذا شيء جبار وعظيم وغال يلا دادي لي بق تقول الأك سيمبل دل جنگ القرآن حينما تقرأ القرآن بالتدبر والمناجات الله يحبك وهي الحاء الله يحبك راء الله يراك سوي جنگ القرآن أكبر بيغا أكفو أك رقي رقي ak waxtu wu mënti nekk yàlla daf lay xool alladi yaraaka xiina taquum ah yàlla moom moo lay gis ah wa taqallubaka fi assaajidin sooy jàng alquran yàlla daf lay xool turid an yaraaka allah turid an yandura ilayka arrahman iftaxi almushaf wabda bi qiraati alquran da nga bëgg yàlla xool la xam nga léeg-léeg nga dem ci ab benn jotaay nga nga am koo bëgg mu gis la signe bu nekk nga jéem koo def waaye xam nga ban signe ngay def pour yàlla gis la pour yàlla di la xool ubbil alquran wala neel audu billahi min alsheytani arrajim bismillahi arrahmani arrahim alhamdulillahi rabbil alamin door nga rek yàlla ngi lay xool xoolatul kenn kon juróom ya nga xam ne moom ngay gañee ci alquran te mu gën a tuuti ci liñ mën a lim alha yàlla daf lay bëgg ñaar ar ruya yàlla lan yow lay xool ñetteel ba leen siin assam'a mooy xadis bi ma leen waxoon sànq muy xadisu Fudaal ibnu Ubayd yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na yàlla dégluwul kenn dégluwul lenn comme ni muy dégloo ki ubbi Alquran di ko jàng baat ba neex lool mu toog di jàng Alquran alkarim kon moo tax ma ne la waxu waay waxu ku mu nekk neex waxal waaye soo bëggee yàlla déglu la jàngal Alquran alkarim mu may leen assiin mu def leen almadha sooy jàng Alquran yàlla daf lay tàgg. la ilaha illallah. في من nga dox ku nekk di la tagg yamdaxuka annaas waaye yamdaxuka rabbu nnaas in aradta hada داوم على قراءة القرآن وكذلك تدبر القرآن والعمل بالقرآن والتفهم القرآن وتعقل القرآن يلا دفلي تق الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به سلني حين أولئك يؤمنون به ñi nga xam ne yàlla ne dama wàcce ci ñoom alquran yatluunahu xaqa tilaawati xaqa tilaawati comme ne ko abdullah bin masud waxee woon yuxillu xalaalah wa yuxarrima xaraama wa yaqra'uhu kama anzalahu llah mooy ngay ngay jëfe digle ya bàyyi tere ya di ko góorgóorlu di ko jàngee comme ne ko yàlla wàccee mooy alquran alkarim yàlla nee ne ñooñee di yàllaa ngi lay tagg ne yuminuuna bihi ñooñu ñoom ñooy ñi nga xam ne dañoo gëm alquran alkarim kon moom leen المدح يلا دفلي تج جرو مال بتشينغ خم نمنن كولم تشينغ يجلي تي القرآن موي العين موي العطاء لو بغي يلا جخلكو موت من لين سخلا بعير أم توسلن كتي القرآن يلا جخلن كو موي حديث متعدد بينت صلى الله عليه وسلم نين من شغله القرآن وذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين يلا نين كوي جنغ القرآن wala toog di ma tudd alladina yadkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim di toog di tudd yàlla buur bi subhanahu wa taala wala di jàng alquran ndax ñaari benn la yàlla nee ne dama koy jox la ëpp la may jox ña nga xamante ne ñoo may ñaan loolu misaal boobu mën nañ ko jox si ca nit ñi am nit ñoo ne bëgguñ ku leen di ñaan soo nekkee ak rek ñoom dañ lay may loo xam ne ëpp na maanaam soo leen ñaanul lañ lay may moom moo ëpp lañ soo leen ñaanee yàlla nee ne ki nga xam ne loolu soo ko bëggee am ci yàlla yàlla nee ne ngay jàng alquran jàng alquran rek ñaan la tok di tuddu yàlla rek ñaan la so paré rek mën nga dem yàlla xamna li sa xol dina la ko jox yàlla neeni ataytuhu afdala ma uti sa'ilin dama koy jox la ëpp lama jox ñinga xamanteni ñom ñoma doon ñaan kon juróom yaangi ngi kon xolal mbokk yi alquran amul pertement hirsun maa hirsun maa alha alxubb yàlla daf lay bëgg arra arruya yow rek la yàlla di xool asin asam yow rek la yàlla di déglu الميم المدح يلا دفلي لي جنغ القران الكريم العين العطاء لو بقتي يلا جنغ القران اقرأوا القران واسالوا به الجنه وفي روايه اقرأوا القران واسالوا الله جنغ القران ين ين يلا سو توسل يلا او يكوتي القران رك يلا دفو بقى القران لول دفو بقى القران دفو بقى القران ndax alqur'anu kalaamullah wa kalaamuhu sifatun min sifatih wa sifatuhu abadiyatun azaliyatun la awala laha wala axir lii mooy waxu yàlla buur bi subhanahu wa taala kon soxla bu ñu am ci yàlla buur bi subhanahu wa taala nañ ko awee ci alqur'an yàlla buur bi subhanahu wa taala dañ koy defal kon tey moo nekkoon jotaay bu mujj ci saison bu jiito bi ci li nga xamante ne moom mooy di asalafu ma alqur'an mu nekk jotaayu fanweer di sant bu baax a baax te ñaanal ñi nga xamante ne ñoom ñoo ci àndoon ak ñun depuis ca ndoorteel ga ñu amee ko ci kër gu tedd gi nga xamante ne moom mooy la maison du Coran au Sénégal baytul Quran al Karim fi Sénégal muy kër gi nga xamante ne lépp lu fiy daw lépp lu fiy daw ca alifun ba yaayun lépp alquran la lépp alquran la kon ñi nga xam ne ñoom ñooy ñooñ alquran ak ñi yittewoo alquran rek ñoom ñoo fiy ñëw ñoo fi feeñ ñoo fiy liggéey ñoom ñoo koy seetaan yàlla yàlla boole nu gërëm ñun ñëpp ci àdduna waaye bu yowmal qiyaame képp ku safoo kër gi di la maison du Coran bu yowmal qiyaame yàlla boole la duggal aljanna xoolal yàlla lépp lay bu yowmal qiyaame lépp la yàlla di réglé imaginal tey jii ñi nga xam ne ñoom ñoo abonné la maison du Coran yàlla xool nga bokk ci ña fa abonné rek loolu rek mën na la andil shafaa yowmal qiyaama billahi ni yàlla bëggee alquran dafa ëpp yéen xamoo leen loolu moo tax lépp loo xamante ne taq na ci alquran soo diggi fekkee gars di ca diwu yow dékkul nga sangu ca sangul ca alquran al karim maanaam taq ca répp waaw niin ca niin ca يالا نكو يالا بروبي سبحانه وتعالى دفل كون لو ياغول ان شاء الله تعالى دي نكومانسي ليغا خامني موي سيزون 2 تي اسلف مع القران تي يينن خيتي خام خابي القران تي يينن مواقف ان شاء رب العزه والجبروت ما كان من ثواب فمن الرحمن وما كان من خطا فمن نقصان صلى الاله على النبي واله ما لبى ملب او تهلل محرم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته